taalibe yi wax ci seen xasida yi ñuy dund luñ ci xam ni baax na xasida boo xam ne danaa am yor ne ah moom di ko sóobu bismillah وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سواء أبيات تيمير أبيات أبيرو فوكانيا 152 mooy jàpp ci alquran إن هو إلا وحي يوحى. ci sóobu. ci sóobu najm. ndax ci la suñu borom bi àggalee rayaan rayaan bi mu ko ci asra israel ay bu jëkk ba ci basiru suñu borom bi dagg bi ci israel mu ko yegg ci nasi moo tax gi li ñu wax ni wax ndax diggante bu laa day maam wax ak sëriñ bi naan ba sëriñ bi dugg génne xasida gi muy bind bu bind fa benn xaju wax bind ak ak xajul te xasida gi xasida bu bëri ko sifaat xanaa xam nga doo daan xàqal régulateur lu ëpp soo koy jàng da koy wàcc ba muy taw lu manqué soo koy jàng da koy yéeg ba mu taw moo tax lu tari bi di duus wante bu boole woon daal moom kër bu yem su li nga duus moom këram day neex jàmm dana fa am te xéewal dana fa xoolal ñaareelu bi الدنيا وليعقد الدنيا المصير للمؤمن مثل هذه المصير génneel pour yàlla yi fi nekk adat leen dafay jox neuf cent soixante mu jàpp sóotul ixlaas nga xam ne secret sóotul ixlaas maanaam ko sëñ bi yamu ci jërëjëf yamu ci dafa génne xaqiqat sóotul ixlaas xaqiqat sóotul ixlaas da ngay jël neuf cent soixante bu nga xam mooy limu sóotul indi nag xuruf yu xam bi ñu leen def ndax day jël valeur xuruf xaraf la allahu bi ñu soxla laaj bi trente la day jël su ko am machine à calculer la ko jël léegi neuf cent soixante-douze plus trente am na ci ñàkk léegi nga ñëw ci sama bi saab bi di ko chan comme saab soixante plus soixante beneen doon fois 30 ah ma tàmbali wax 972 mooy soo ne qul huwa allahu laamu allahu duñ ko sàcc donc 972 plus 30. 1200 waaw léegi samat bi sàcc duñ ko sàcc sàcc bi 60 plus 60. allahu geneen laam bi duñ ko sàcc ci allahu bi lëbu laaj bi duñ ko sant plus trente mu jox la. mille cent vingt deux mille deux mille cent vingt deux soo ñëwee ci yàqu du lii kun fa yakun xaaj yi. min bi laa xeq ne wala ci xaaj mooy adama. mille cent vingt deux mooy adama bay boobu. mille cent vingt deux. يقول لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاج ما يعلم بنا بنفسي بنك فهمنا أكرمني بقل هو الله أحد ربي ما لم يكن له moo tax su gars yi di di di toog di wër di soog si émission yow di jàngoo kàddu fu ñu peese noor de am na xas. loolu daaree. Sindi. turam dëgg dëgg su la mën Firdawsi mooy kerkeraan ba jëf àjjana Firdawsi Sindi bi. sëñ Modou Lo Ngaabu nen mu wax ko sëñ Mbay sëñ Modou Mbay kii mu nekk leen